fële ci Brésil euh, fekk euh, mouvement sociaux yi mouvement paysan yi ak syndicat yi mhm. daje woon foofu ci invitation wu Lula mhm. mu nekk temps bu maire wu Porto Alegre mhm. mu invité ñu pour que nu waxtaanee doxalinu àdduna gi jëm ci li ñu wooyee mondialisation mondialis boo xamante ni dafay faral souvent exclure population yi ci dynamique développement mhm. di privilégier intérêt mhm. di privilégier koom-koom di privilégier bénéfice au détriment des populations mhm. foofu la forum social juddoo boobu ba léegi nag chaque année daanaka dañ ko daan def édition mais pendant Covid bi dañ ko arrêté woon euh, am na bu ñu def temps yi Tunisie convoqué foofu comité international bi pour ñu xoolaat ndegam Covid bi weesu na nan la ñuy def ba jëlaat édition forum social mondial. kon seen taxawaay mënu leen ñu leen banqaasoo ci benn parti politique. wala ah, benn benn euh, naka laa koy wax position. benn kuréelu benn non non non waaw ñun lu ñuy wooye altermondialiste la. maanaam féetewuñu ci benn mhm. parti politique. Mhm. même bi lu laa nekkee président. léeg mhm. dañ dañ daan jàppanteeg moom ci doxalinam. moom itam daf daan faral di ñu déglu. ci doxalin bi jëm ci par exemple koom-koomu agriculture mhm. dem ci pro politique alimentaire mhm. dem ci commerce international mhm. dem itam ci environnement waaw ah, mais déglu boobu ngeen amoon ci moom est-ce que am ngeen ko yéen ci seen réew yi nii comme Sénégal ano ah, loolu moo gën a jafe nag hmm. xam nga suñu réew yi dañoo ragal ñuy waxtaanee si moo tax tolluwaayu réew meeg waaw xam nga Sénégal ak réewu Afrique yu bëri dañoo hmm. ragal lu ñuy woowee société civile hmm. te li ñuy faral di wax mooy que ni ku war société civile rek dañu la naan de opposition souvent noonu lañ koy gisee. Hmm. alors que am na ñoo xamante ni xëy na def politique soxalu leen am ñoo xamante ni def politique soxal na leen ñoo ngi ci loolu man mi par exemple ba ma politique soxaloon. Hmm. ci jamono. et mënoon naa dugg ci politique parce que hmm. temps parti socialist samay mbokk ñoo doon jiite parti socialiste. ok donc mais j'ai tout le temps dit ça ne m'intéressait pas. donc du léegi la ma politique di intéressé ça ne veut pas dire que maintenant amuñu opinion ci nit politique di doxe mhm. am ci opinion. waaw bu weesu na wuti na. ak bokk si ak bokk si waaw wala nga far dëgg la. Euh, alors ban jàngat nga am ci comme actualité la ñuy waxtaanee bi ci gën a fës ñu xëyee ko tey yéene yi fësal ko bokk na ci cour des comptes ak euh, joxoñ gu mu joxoñ ministère yu bëri ci xayma juróom. ñaar ba juróom-ñett su juumul ci seen taxawaay ci fonds Covid yi ñu leen yiñ ñu leen joxoon ban jàngat nga ciy def. jërëjëf jàngat bi ma ci am mooy que ni boo fàttalikoo der mhm. bi Covid bi duggee adduna gi yëpp moo nekkoon ci situation bu jafe. Mhm. chef d'état yëpp ku ci wax ak sa askan. nekkoo dañoo nekk période guerre. Mhm. tous les chefs d'état. bu Amérique. Ah, moo doon kàddu bi gënoon a. ñoom ñëpp guerre guerre. tout mhm. le monde disait on est en guerre. Mhm. alors man defoon naa ci temps boobu benn papier di wax ki ngeen di gëral kan la. Mhm. ndax bu dee fi ngeen di këral benn microbe la. benn virus xam ni mënuñu ko gis. bët du ko gis kenn mënu ko gis. waaw bët du ko gis te yéen ñëpp am ngeen armement de guerre. am na ñu am arme nucléaire. am ñu am toutes les sortes d'armes sophistiquées lan moo tax ki ngeen di gëral mënu leen ko donc éliminer ba seen askan nekk. ci donc donkaasige bi nga xamante ni moom ngeen koy yéene woon. et loolu ci article boobu dama doon fàttali donc ça veut que voie bi ñu jëloon ñun la voie de développement bi excluroon santé éducation et emploi mais qui privilégie bénéfice rendement au de la personne. boobu voie waroon ko xoolaat bu baax a baax ndax booy gee rek loo xamante ni nee nañu benn virus bu ndaw la kenn mënu ko gis te mënuloo ko rey mu téye sa koom-koom. Mhm. tëj sa aéroport. Mhm. tëj say gar tëj sa école yi tëj sa marché yi xam nga guerre boobu doy na waar. tëj nit kër yi. tëj nit ñi ci kër gi. par force. xam nga nag ger boobu ça veut dire que orientation développement moom lañ waroon xoolaat. Mhm. moo taxoon ci boobu jamono suñu comité international ne nañ fàttali dirigeant actuel di nekk ci àdduna gi ne. Mhm. l'orientation d'un monde. Mhm. qui privilégie l'armement. qui privilégie le bénéfice au détriment de la santé. ci néglige l'éducation au profit du bénéfice mhm. boobu orientation dañ ko war a xoolaat mhm. te fexe ba koom-koom gi nekk au service de l'homme mhm. et non pas l'homme au service des finances et ça donc ça pose des questions d'orientation de développement voilà pourquoi donc ñun altermondias yi dañoo xaw a wuuteeg ñoom gis-gis ci revenir ci question bi nga posé bi loolu amee ñun bokk nañ te njëkk a bind chef d'état yu bëri man fii Sénégal gouverneur Sénégal mu mënuñu weddi ne mhm. amul luñ ci waxtaan ak ñoom mhm. ma jot ko ci banqaasu forum social ne leen ndegam yéen a nga ci guerre mhm. suñu contribution ci seen guerre bi lii la ñu ngi leen di xelal lii xelal leen lii proposer leen lii bokk na ci à l'époque ñu leen na ngeen fexe demander annulation de la dette na ngeen fexe woote une synergie nationale boo xamante ni ñëppay booloo pour faire face à la guerre. Mhm. ndegam vous êtes en guerre. Mhm. nañ fexe itam ba toutes les contributions volontaires. Mhm. pouvant permettre à ce que ceux qui sont au front de la guerre ñu mën leen a jàppale loolu def nañ ko Sénégal def nañ ko Mali def nañ ko Europe fépp def nañ ko foofu. donc moo tax bi ma gisee rapport bi démb ak tey. observateur génne ko di wax ni. pendant ci guerre bi ñu nekkoon. bi am ay contribution volontaire. pour soutenir l'effort de guerre. am ñu seen xel dem ñuy xalaat ba yegg ci effort de guerre bi. ba def ci ni sudul noonu. wala utiliser ko fi nga xamante ni baru foo woon dem dëgg dëgg ñooñu normalement war nañu jàpp ne ils ont trahi la nation qui était en guerre. et quand quelqu'un trahit na la nation qui est en guerre kooku. ce qu'il mérite ñëpp xam nañ ko. mooy sanction à la hauteur de la trahison. Mmh. sanction boobu nag xaw ma ndax droit Sénégal dina ci jóg. xaw ma ndax justice Sénégal dina ci jóg. mais dëgg-dëgg bu réew nekkee ci guerre der dajale ay doomam. ñuy fanaan ci hôpitaux yi. ñii di fanaan ci dispensaires yi. ñii di fanaan ci police di fanaan ci mbedd mi. place police di fanaan ci mbedd mi. ñëpp d'accord. ma dégg ci yoowu jamono président Macky Sall woote beewoo opposition ni ñëw leen ñu toog waxtaan donc ça veut dire que la guerre était très dangereuse mhm. donc lépp lu ñu ci def ci alal ci xalaat ci koom-koom waroon na yegg ci nga xamante ne mooy résolution mhm. guerre bi bu ci leneen duggee wala feneen dem fa dëgg-dëgg ñooñu liñ ci war a def mooy bañ a xaar sax mhm. ku ñu jox ordre mais procureur doit s'autosaisir immédiatement sur la base de ce rapport déglu ñi nga xamante ni ñoom lañ ci tudd. Mhm. xam lan lañ leen di def mu de wax askan yi ne lii la ñu nam ma def ci ñi mhm. ndax yaakaar naa ni procureur ci boppam souvent ay cas yu gën a graaw loolu mhm. mooy graaw loolu. day am mu autosaisir def conférence de presse. bii nag ñun de si suñu wàll. ñoo ngi xaar rapidement autosaisine. du procureur. une conférence de presse du procureur. loolu bu amul dëgg-dëgg ñun gàcce gu rëy. ndax. askan gu nekk ci guerre euh, xeetam cotisé ñu joxe ay contribution ñu jël loolu def ci ay surfacturation jël loolu def ci nu mu nu dul de war a mu doon demee je crois que donc normalement on doit prendre les li ngay wax prendre ay mesures bokk na xëy na ci li tax dootul am mais au-delà effectivement chaque année ñu gis rapport euh, bu dul bu euh, kuréel sàngam cour des comptes wala beneen naka la ñuy def ba nga xam ni lii dootul dootu fi amati. très li ñu war a def pour que lu mel ni bañ fee amati nañu fexe ba pouvoir d'autosaisine et d'auto de sanction mm-hmm. des corps de contrôle de l'État nekk loo xamante dañ koy xaatim ci constitution bi mm-hmm. deer mm-hmm. ki nga ne xoolal ma sama moomeel mu jay saytu la sa moomeel gis ni moomeel bi danga lii ak lii moo ci dugg nii ak nii la demee waru ci woon bokk nga ne kooku warul jël sanction kon kay c'est pas la ñuy taxawal ay kuréelu gu saytu moomeel bi. c'est donc solution parmi les solutions que corps de ñii. parmi les solutions. oui il faut que les corps de contrôle. Oui. IGE. Mmh. Cour des comptes cetera. Mhm. ñu fexe ba ci suñu constitution. ñu jox leen maqaam pouvoir boo xamante mhm. ni. bu nu gisatee ëllëg. Mhm. loo xamante ni man maa ko def. Mignane Diouf wala DER moo ko def. wala Massamba moo ko def. wala euh, Baba Maal moo ko def ñu sanctionné ko. mais bu ñu dee xaar nag. ah Baaba Maal nga wax de. Ah, sama xarit la boo si sama kàll la. waaw mais mais tuddal séeréer yi. <laughs> mais buñ ay alpulaar yi ay bismillah buñ dee xaar. samay goro lañ moo tax ma leen di. waaw man samay jaam lañu te Baaba sama xarit la <laughs> bu ñu dee xaar donc mhm. président ne. Mhm. sanctionnel ma yi mhm. dafa naa du gaaw am li tax. président dafay ànd ak ay gàngooram. ak farfarloo. souvent day jafe chef d'état yi. ñu jébbal seeni nit. très bien euh, alors mais nag. man amoon naa yaakaar bu rëy. ci 2011 mm-hmm. bi ma déggee sama kal président Macky Sall je ne protégerai personne je veux mettre la patrie avant le parti. Mmh. je veux une gestion sobre et vertueuse. Mm-hmm. mu doon gestion boo xamante ni xamoon naa ko tuuti ci Thomas Sankara. Mm-hmm. moo tax bokkoon naa ci ñi nga xamante ni amoon nañu yaakaar gu rëy. 2011 bi muy def campagne. ñu ànd votel ko mais nag li may gis nag fan yi ak dernier at yi ñu nekk xaw naa am tuuti gàcce ndax du lañ loolu lañ doon xaar nañ fexe ba ku defati alalu réew mi lu dul noonu comme muy membre d'un parti au pouvoir d'une coalition au pouvoir wala de l'opposition nañ ko teg li nga xamante ni moom la yelloo mhm. ci sanction bu nu ko deful duñ fi gaaw a jël lu mel nii mhm. donc parmi les mesures il y yaa aussi que parmi les autres mesures le président continuera et doit continuer à appliquer le fait que du ma protéger kenn mhm. bu loolu amee ñetteel bi itam nañ fexe ba ñi nga xamante ni ñoom lañu def ci ministère yi mhm. ñu doon ay agent ñu bañ di privilégier ceux qui sont membre de la coalition du parti mhm. am de poste yoo xamante ni boo fa tegee sa partisan souvent dina def loo xamante ni du la neex wala méngoo te doo ko mënal lu bëri doo voilà donc nañu def poste yoo xamante ni kuñ fa bëgg a teg mu ñu def appel d'offre mhm. poste bi mhm. lii ak lii la laaj xam-xam bi la laaj mhm. profil bi la laaj bu dee yow yaa koy yelloo deer ñu teg la foofu nga taxaw itam def sa serment li ngeen ma teg ci direction nationale bi dinaa fexe ba li ma fay xaar ma dox ko mais tant que on fait des nominations partisanes et souvent même pire j'ai entendu récemment pendant les dernières élections qu'on disait que le président nee na ku ci ñàkk élection yi ma dàq la. xam nga loolu boo ko waxee directeur. boo ko waxee directeur lan ngay xaar mu def. ah dina def kenn kàttanam pour. Euh, ñu bañ ko dàq <laughs> mais directeur boobu xëy na poosam. Mm-hmm. dong dong. Mm-hmm. wala ndonoom ci ay waajuram. Mm-hmm. permettre ko mu def campagne. fan la koy jëlee. ci kees gi ñu ko dënk ci réew mi appel à candidature xalaat nga ni pour post yi ñuy def euh, appel à candidature euh, pour pouvoir yenn post yi surtout bu dee post yoo xam ni nga wax dafay sensible dafay kii ndax du pexe du solution. solution la. Mhm. mais y a des pays qui l'ont Oui. le l'a fait la Côte d'Ivoire même récemment l'a fait. Mhm. je crois que donc loolu doon na yoon ngoo xamante ni day tax sax ñu encourager. Mhm. l'envie de l'excellence dans le pays. ci njàng mi. ci wutum xam ci façon gouvernance xam ni boo xarañee moom ni nga wax jongante gi boo ci demee. mais xam nga réew mi fi mu toll wóolu nga sa bopp di ko am. très bien mm-hmm. fi ñu toll ci réew mi y a tellement d'excellence. Mm-hmm. mais souvent c'est des excellences qui ne sont pas partisans. Mm -hmm. qui ne sont pas membres du parti. Mm-hmm. donc kenn du leen boole ci dara ndax. jàpp nañ ne du ñu def politique. est-ce que rek la minorité qui fait la politique moo war a am pouvoir ak capacité di diriger le pays au détriment. d'une majorité où on trouve ne ñu ngi toog seen kër effectivement bokkuñu donc loolu bokk na ci il faut ñu ubbi mhm. am euh, générosité ubbi les postes de direction nationale mhm. à des compétences sénégalaises qui peuvent être à l'extérieur mhm. qui peuvent être à l'intérieur du pays ou dans la sous-région ku ci soxal réew mi soxal nga xam ne fi ma toll fii laa mën a jàppale réew mi mais ma ñëw jàppale ko foofu mais nag tant qu'il y a exclusion il y a forcément prise de position. au profit au détriment des autres. ma ni ko waxtu waxtuwaan yi bokkoon na ci li ñu waroon a waxtaanee assemblée nationale euh, ak sommet bi am actuellement États-Unis Afrique ñu dem rapidement assemblée nationale yaa ngi koy wax sànq euh, la patrie avant le parti assemblée nationale gis nga ni ñuy député ya fa nekk euh, seen parti seen i chef ña leen a tànn lañ fa. teewal wala patrie bi fa teewal le prétexte c'est évidemment les deux députés qui sont actuellement en en garde à vue Massata Samb su ma juumul ak euh, Mamadou Niang. xam nga le problème problème du Sénégal ci assemblée nationale. Mm-hmm. mooy que ni depuis 2000 ba léegi et particulièrement depuis 2011 bi tey. Mm-hmm. on a un landerneau politique qui est en tension de guerre ci waxin bi. Mm-hmm. ci doxalin bi. ci nekkin bi tant que loolu muy am gis nga li xew assemblée mën na am xëy na buñ dugaloon ay doomu réew yu bari ci ministère yi mu xew fa exactement waaw que waxin bi doxalin bi gouvernance bi dafa ji waxin boo xamante ni waxinu guerre la nekkul gouvernance su dialogue bi ñu xam ne woon réew mi mhm. nekkul gouvernance concertation. nee nañ léegi politique gu noonoo la sax. politique gu dañ maa bañ sax ngay dégg nuyu wax na ngeen bañ na maa bañ. donc ça veut dire que assemblée nationale bi ñu doon xaar. Mhm. ci législature bi. c'était vraiment pour que les sénégalais jël optionné kenn du am majorité totalement débordante. Mhm. je crois que le message des forces waaw. le a été mhm. donc d'équilibrer les forces. il devenait maintenant à ñooñu fa nekk tey. ñu comprendre loolu. mais aussi pour comprendre joue aussi sa partition de pouvoir. jouer sa partition de pouvoir mooy que man bu fekkee man may pouvoir. Mhm. te aw ma opposition euh, majorité ab euh, absolue écrasante. Mhm. je dois faire de sorte que ma bañ a tombe ci yenn provocation mhm. ma bañ a tombe ci ay tontonte ay ñi nga xamante ñooy samay opposition. opposition bi itam. làmbo une opposition patriotique et républicaine ku ci nekk bu defoon xëy na loolu mën na am li ñu fa gis fan yii ñu bañ ko faa gis ndax bu boobaa xëy na daañu privilégier dialogue même s'il est vrai que institution parlementaire. Mhm. porte un peu partout dans le monde dafay bari ay. ay coow ay coow ak mhm. affrontement. mais quand dem ba ci dóor. Mm. et actuellement ñu ngi en garde à ni ma ñi nga xam ne ñoo waral coow lu mujj li. waaw Sénégal mënoon na bañ a yegg foofu ci yegg foofu. Mhm. te te et tout était là pour ne pas arriver la l'histoire récente du de de de la dernière législature. ak yeneen i problème yi ak fi réew mi tolloo tey. waroon na mën a tax ku ci nekk ci fi nga toll nga jouer le rôle d'un politique d'une fem politique capable de comprendre mais, le message des mais xam nga li nga wax sànq la tamit ñu bëri dañoo toog seen kër bàyyeek ñenn ñi finalement politique bi est-ce que du ni ma doon wax sànq appel à candidature yi ñuy wax politique yi aussi bien pouvoir qu'opposition war nañ xoolaat seen bopp jéem seet nu ñuy amee ay nitu qualité dans leurs instances ba bu ñuy investir tamit ci liste yi ñuy investir ñoo xam ni vraiment dinañu dina duñu duñu euh, tuutil askan wi xam nga sax yeneen yi ngeen di woy ay cadre ak intellectuel am na ñoo xamante ni tooguñu rek caaxaan. Hmm. mais dañoo bëggul taqal seen bopp. ci lu ñaaw lu ni ma hmm. man gens m'ont proposé d'être dans leur liste de de de candidature j'ai dit non. Hmm. je suis pas prêt à le faire tant que les conditions de gouvernance sont ce qu'elles sont. parce que am na loo xamante ni du ma ko nangul benn doomu aadama. mais et je sais que je suis pas le seul. Il y plein de gens qui sont prêts à servir le pays mais de pays passe par une position de partisane politique de guerre d'insultes et d'invectives man day juuf duma cee bokk. mais bu ñu mënee nag réew mi soxla na la fii xam sa xam-xam wala sa mëneen lii nga mën a def est-ce que d'accord nga ñëw jàpp dinaa ci jàpp li ma mën. Mhm. mais dëgg-dëgg am na loo xamante ni kenn mënu ma ko defloo kenn mënu ma ko loo parce que euh, yareewuñ ma noonu te je sais que je suis pas le seul il y a plein de gens dans le pays. yoo xamante ni xëy na bu ñu leen xejaloon ci doxalin bi. Mhm. wala bu ñu leen dégluwoon ci doxalin bi. Mhm. mën na am am yoo xamante ni du fi xew ci façon la façon de faire et ça y a suffisamment d'intellectuels hommes et femmes de cadres mmh. à l'intérieur comme à l'extérieur mais qui seraient prêts à faire cet effort-là donc ouvrir les postes de direction nationale mmh. à des gens qui ne sont pas forcément oui. membres d'une coalition ou d'un mhm. parti politique, mmh. ça ramène vers l'excellence. Ouais. Ça ramène aussi à la bonne gouvernance. Mmh. Ça ramène à la pluralité des acteurs, des décideurs mhm. et des décideurs du pays qui sont capables de conduire le pays vers ce que l'on appelle l'émergence. Alors, mënuñu woon bañ évoquer ak yow euh, sommet États-Unis Afrique bi am jamono ji à Washington euh, ban njeexital nga ci xaar pour euh, Afrique. Alors, qui a lu un peu Cheikh Anta Diop Lumumba je reviens d'Accra le week-end passé où mmh. j'ai mhm. discuté aussi avec les panafricanistes mmh. et mhm. les héritiers de Kwame Nkrumah au centre de Kwame Nkrumah avec sa fille Samia à qui je dis bonjour mmh. J'aurais bien aimé que les conférences Afrique Amérique Afrique Europe mhm. Afrique Palestine Afrique Chine, Chine Afrique ouais, Russie Asie mais d'ailleurs pourquoi l'humanité fait la cour à l'Afrique jusqu'à lui l'inviter tout le temps à des conférences internationales et pourtant on nous dit vous vous ne valez pas grand chose na ba tiers monde la seen xam-xam yeggul fenn seen koom-koom yeggul fenn mais saa waay bu fekkee nag ñun Afrique du ñu dara. Mhm. amuñu dara. lu tax ñu ñuy woo tokki dara mais pourquoi faire la cour à tout ce. Mhm. de cette façon là à l' Afrique. Mhm. ça veut dire donc ce que l'on dit et ce que ñu bëgg a gëmloo. nekkul l' Afrique est l' de l'humanité du point de vue économique. du point de vue démographique. du point de vue énergétique. du point de vue des ressources. l' Afrique est le devenir de l'humanité et ça tout le monde le sait. je te renvoie ci benn rapport bu Sénat français defoon. tout tuddee ko la place de la de la France dans l'Afrique d'ici 2050 une position disent-ils géostratégique à ne pas manquer donc moi j'aurais bien aimé que ces conférences-là que ce soit les Africains qui disent aux autres comme c'est vous qui vous intéressez à nous ñëw on vous donne rendez-vous à Dakar on vous donne rendez-vous à Bamako mhm. à Conakry au Zimbabwe à Lusaka mhm. quelque part mais ci conférence yooyu aussi que sunu chef d'État yi am humilité générosité de dire toutes les forces africaines qui sont capables de nous aider à faire face, à discuter, à négocier avec les parties prenantes qui nous invitent à négocier, qu'ils soient de l'opposition ou, ou, du, du pouvoir, pouvoir wow. nous faisons appel pour avoir avec nous un gâteau mmh. d'intellectuels, de spécialistes, d'analystes qui peuvent nous aider à discuter dans les perspectives prochaines avec ces pays-là. Mmh. loolu bu doon am na xëy na a tax Afrique. Mhm. bu dee négocier gis ma léegi j'ai vu que Israël demande une conférence avec l' Afrique. Euh, l' Israël membre associé. oui de l'Union africaine. Mm -hmm. mais si on n'est pas si intéressant pourquoi alors. vouloir nous rencontrer la donc bref. je pense que mhm. il faut que tout le monde comprenne que les enjeux du monde de demain c'est en Afrique. Mm la vie de demain se fera en En Afrique. la question c'est de savoir est-ce que. ca se passera avec les Africains en Afrique. Mhm. ou sans les Africains et avec les autres en Afrique. loolu nag il faut ay analyse yu baax. di ko def il faut aussi dans la gouvernance ñu am générosité am xel ni ñi bokk sax ak man. Mhm. te doon ay africaniste doon ay doomu Afrique. ma yaakaar ni am nañu xalaat bu baax ci biir Afrique naa leen invité ci yooyu waxtaan ñu jox ma seen xalaat wala ma consulter leen ñu jox ma seen xalaat ndax wolof Njaay nee na. tàggoo ki la dul tere yoon yàquti yoon. exactement yàqul yoon. merci <laughs> jërëjëf Mignane Diouf. xam naa boobu wolof nga dégg moom Buur Sine ñoxo baay Diouf dina <laughs> dina la woo. merci ne la séeréer bu toll ni ñoo xaw ma noo def ba dégg séeréer <laughs> wolof yu mel nii. ñu ngi lay gërëm di la sant. Euh, léegi léegi soxna Faat ki ne dem teew na xibaaru marax yi. Euh, gannaaw gi ci kattanu borom bi ñu dellu si fii mottali soir d'info ci nasaraan lay doon boobu yoon.